café Touba di café bi kilifa yi taamu café bi jëwriñ yi taamu boo ko taalibe yi gën a firndeel loolu yi ngir sell mu sedd neex taw féexal lool café Touba di café bi ànd ak ngeen mën ko wécc ko ci njëg yu xéwale ba noppi mën ko am fépp ci Sénégal

asalaamaaleykum mbokki ndar gi bi seen magasin Touba électronique waa kër Cheikh Issa ak see ba léegi ah mbokk waa Diop et ñoo jóg taxaw ngir indi leen lépp lu ngeen itteewu dama ni njàqare jeex na ba faw waaw dama ni mbokk li ko tàmbale si matériel de sonorisation bu ngeen bëggee ay baaful dernière génération yu am loolu porté boole koog son bu neex ah dama ni mbokk ak si nga ay table mixage si mboole marque yu ngeen bëgg dama ni bi waa Touba Angleterre ñooy fii si xolu ndar géej mbokk yi kenn namatul Amérique kenn namatul Chine kenn namatul Dubaï lépp agsi na fekk si leen fii si ndar lii ci ay matériel électronique yu mucc ay ampli bloc wala nag ay micro sans fil lépp lu ngeen bëgg si xeetu micro mën yi ngeen yor sonorisation ngeen yor rajo ngeen yor salle de conférence ak lépp lu ngeen mën di bëgg bu ngeen agsee fii seen jumtukaay yaa ngi fii toog leen xaar والقلم وما يسترون mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi boobu boobule ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër docteur xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yépp agsi nañ te saa yu ñu jubluwaatee ci weer liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. anta bi ni'mati rabbika bi majnun dal jàmm ci le croissant chaud le croissant chaud KSS ñu ko naan kër Serigne Saliou boulangerie pâtisserie ah dama ni dal leen jàmm la njàmbun croissant yaa ngoo croissant chaud ndax da ngeen di ami gan dee leen teral ak croissant yu tàng jër mburu mu tàng jër pain yu tàng jër viennoiserie yu tàng jër hamburger ya gâteau ya loo xewle même gâteau anniversaire ñëwal ñu defal la ko suñu cafétéria fast food manqué wul dara Kër Serigne Saliou boulangerie pâtisserie woo ñu ci 33 974 24 24 waa Touba xam nañ ñu de ñëpp ñu jox cër fii ci dëkk bu sell bi xoolal suñu liggéey bu sell bi am nañu cag-cag da ngay toog sa kër woote ñu livrer le croissant chaud yi sa kër wala ñu livrer la mburu mi sa kër wala ñu livrer le hamburger yi sa kër wala gâteau yi hamburger yu neex nag laa wax wala nga bëgg pizza yu saf ay pizza yu safa a saf waaye yow pizza yi moom mbete Italie 78 461 58 58 suñu site web www.kssimport.com. BTP vous présente le béton basalte pour la construction des routes des bâtiments am nañu béton basalte bii nga xam ne mooy bàyyi ko foofee ca Ngunjaan ak basalte blanc bii xam ne mooy bàyyi ko ca Bandia ci bépp catégorie am nañu ba tey béton sélecté spécialement fabriqué pour les constructions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 moom ba faw bu fekkee jàng nañ ci koor lañ ca war a jàng yóbbaale ko kon weer la wow yàlla daf ci goreel ay nit ci sawara goreel maanaam jot leen génn leen bañ set wicc ci lim ba waroon demee sawara yàlla ci yàlla boole mu génn leen jàngale na nag nu ñuy woore nee na junñu na xadis bi léegi kullu amali ibni aadama lahu illa siyaama fa innahu lii wa ana ajisi bi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

mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw yëgle bu yaatu bi ñu amaloon ren jëm ci jongante mbindum alxuraan bi ñu baaxoo amal at mu jot tudde ko yaatal mbindum alxuraan C3S moo yëgal ñépp rawatina candidat yi jotoon a déposé seen bind ne dafay ajandi concours boobule ba yeneen i jamono li waral lu ni mel nag moo di tolluwaayu mbas mi di coronavirus lëmbe àddina te néewal jotaay yu xumb yi bokk ci li koy xeex ba waral ñu jël bile dogal c 3 mi ngi fàttali ne warteef la ci moom mu sàmmanteeg yile dogal bàyyi ko ci waa kër docteur xamal candidat candidat yi jotoon a bindu ne déposé yi yépp agsi nañ te saa yu ñu jubluwaatee ci wee liggéey bi daañu woo mbooleem ñi jàll ci xaaj bu njëkk bi comme ni ñu ko daan defee c ngi ñaan ci barke alxuraanul karim sunu borom jële fi mbas mi ci lu gaaw asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun seen mbégte mooy suñu yitte ñun daal ñun ñooy kër Serigne Saliou boulangerie et pâtisserie croissant yu tàng jër pizza yu doy waar ah yi hamburger ngato yi nag oo oh, kilo mburu yi oh croissant chaud yi képp ku am sa xew am sa méchoui bu toog boo bëgg a defar boo indee xar bi ñu defar la méchoui boo xam ne day mel ni bés bi méchoui boo xam ne day ala daawume defal la sa méchoui ba noppi livré la ko bu dee da nga bëgg it croissant ñu livré la ko bu dee da nga bëgg it ay pizza ñu livré ko yow daal lépp loo xam ni da mburu mu tàng nga di xam ni xeetu lekk yu bakkene yooyu ñëwal le croissant chaud te nag jàpp leen que ni le croissant chaud bàyyiwuñu dara lépp loo xam ne rek da xeetu baax baax fii nga koy fekk xeetu baax baax yooyu bu la neexee nga commandé ko 33 974 24 24 tey le croissant chaud ñépp ko jox bopp da ngay woo le croissant chaud mu livrer le croissant yi livrer le croissant au beurre wala chocolat wala yaa xam pizza nga bëgg wala yaa xam ndawal nga bëgg ginaar nag la ñu ca man luñ ca man ganaar luñ ca def le croissant chaud ma nga nekk janatu maxwaa ci wetu police bi 30 ndongolo kon nag mbokk yi foofu la cag-cag yi di jóge fooy ne rek ñu livré la la nga bëgg wooteel 33 974 24 24 ñu livré la sa kër nga teral say gan berndeel dëkk wala 76 598 41 20 guy mbind BTP waa kër Serigne Abo Mbacke moom Serigne Sidil Muxtaar foofee rekk la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 télévision écran bu ngeen mën di bëgg ak si ngeen ah mbokk sunu ay écran plat si design du moroom ay caméra nag ànd ak micro bu ngeen bëggee Canon Nikon ay micro HF boole ay écran vert bu fekkente ni da ngeen yëngu si wàllu infographie montage waaye nag yéen ñi yor jàkk bëgg ay micro yu am portée baax loolu efficace mën a tenir mboolem température ba tey mbokk bu ngeen bëggee ay pendule si biir jàkk yi maanaam daal ku lim juum lépp lu ngeen leen gaaw bu ngeen ak say fii ñu yembal lépp dama ni mbokk yi ñoo ngi si avenue Moussaf Malick Gueye soox jàkkaarloog pharmacie régionale ah wala nga woote mbokk si 77 245 28 85 110 733 75 20 wala 76 011 10 118 Touba électronique waa kër Cheikh Issa Diène Diop et frère yëpp leen taamu ndax seen ay jumtukaay yu efficace café Touba Madibo di café bi kilifa yi taamu café bi jëwriñ yi taamu boo ko yi gën a firndeel lool yi ngir sell gi mu sedd neex taw féexel lool café Touba Madibo di café bi ànd ak kaaraange ngeen mën ko wécc ko ci njëg yu xéwale ba noppi mën ko am fépp ci Sénégal wooteel ci numéro yi 78 593 54 54 78 593 50 50 Café Touba Madibo café bi sàlloo cafkay café dëgg Rafah TV une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer